Wuli ñu ngi lay nuyu tey ñu fekk ci tiis boo xamante ne dal na monde làmb mu génn àdduna Moussa Diouf mu nekk sa mbokk ngeen mbokk làmb yan témoignage nga ñu mën a defal ci Moussa Diouf. waaw salaamaaleykum maa ngi sant yàlla bu baax. di wax inaa laaj bi wa inaa laaj bi daa yaxoon di ko ñaan yàlla na ko yàlla xare ajana nit ku baax la. Hmm. man pa pa passé mboolo laa nekkoon. bi bi ma jógee écrit Bawol ma dëkk Grand Yoff. moo ma woo ne ma comme yaa ngi Grand Yoff écrit Bawol dafa sori ñëwal sama écrit. ma ma nekk fii fii laa bëreeg ñu bëree bëree bëri. mooy mën a nit ku baax. fan yii rek danañu chaque suba rek danañu woo téléphone bi laay sama combat saa yu ma amee combat mu woo di ma. conseil man moom sama sama xay la woon ba vraiment hmm. sama kobaak liiru jaan bi gam bi minute bu ne billaay wallaay mooy woo barke Mouhamed lii ngay bëri ak moom bëreel ak lii bëreel lii ba ci maag Adama Diouf bii mujj dama dama fekk ba sama cumikaay ne ma bëreel lii bëreel lii bëreel lii baax la hmm. billaay wallaay taala hmm. affaire bi dafa ma naqari ah billaay wallaay bi bi ma ko déggee télé bi ba tey nelaw ma parce que nag wax dëgg day yu bëri jaana fi mais bii moom dafa ma naqari mhm. parce que nag day doon doon sama sama sama grand frère mhm. chaque moom mu doon wax daan bi ma nekkee passé mbool sax doon wax ne man ak moom dina dënnu jaawale moo mhm. xaw a mu nekk ku baax yàlla na ko yàlla xare a amiin Moussa ku baax la parce que Seydina moom génn àddunaam ci lan la la fekk ak nan nga ko yëgee télé bi laa taal billaahi wallaahi Pape Cheikh bi mu koy wax sax tuut ma daal parce que dafa dafa ma bett quoi. dafa ma bett bett bett bett bett fan dama estati benn yére mu woo mu wow ma ne ma yére bi may ma ko bilaay walaay. même pas un mois yeggu dara. xaw ma sax feebar na xaw ma ko woon. moo tax bii bi moo ko déggee dafa ma mitti di ko ñaanal yàlla nag. bilaay walaay. xam sa bopp. non tam la mën naa la woon suñuy discussion whatsapp yu bari billaay wala yow Fadel man dama bëggoon lu ma estati mu gis ko commentaire fa kilifa gu ma estati mu mu ko ne ma fexeel ma xam kii nit ku baax la barke Mohamed yàlla na ko yàlla xare ajam man sama xarit la woon barke Mohamed topp parcelle mbooloo bi ma fi nekkee aussi jàmm lañu seq maak moom mu combat bu ma bi bu nekkee passé mbooloo combat bu ma mës a am moom moom a yóbbu. bilaay walaay taala. non di euh, léegi nit na ma trop. mais nag yàlla sunu borom kenn ma tax a moom. bu ko newoon sax man mi fii fii may wax ni mu rëy ma trop ma moom dara. kon di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare ajana. yàlla na ko yàlla xare ajana. parce que nit ku baax mosuma gis mu mer. nekkoon nañu passé mbool kaf reetaan. comédien bëgg gars yi di reetaan nit ku baax la de. Hmm. billaay walaay taala. lan ngay wax njabootu làmb. di wax ñoom ñëpp. Hmm. nanu ko ñaanal. Hmm. nanu ko ñaanal man daal vraiment man daal dama koy ñaanal te di am aussi xel mu daal ci wér wii mu dëddu billaay walaay. gis nga nit ku baax. ci wér bu baax lay dem ci bés bu baax lay dem parce que nit ku baax la. billaahi walaay amut xolu iñaan man dama la ne xool même bi ma gën a parce mbooloo nekk écrit bawol combat bu ma mës a am mag Adama Diouf xool open press bi bi ma koy waaj moom moo ma woo ne ma damay ñëw Keur Massar bi laay invité ba sax du ma sax invité moom moom moo wol boppam maak liiru jaan noonu chaque jour mooy woo wuli na nga bëreel ñu gaa xam nga yooyu sax yu bëree bëri mu ma ko conseil nit ku baax la mm-hmm. yàlla na ko yàlla xare ajana yàlla sunu borom mi nga xam ne mooy sunu borom mm-hmm. di sama xarit ma koy ñaan Moussa Dioumé na ma ko yóbbul ajana man na ko di yàlla maa ngi lay ñaan mm-hmm. maa ngi lay woot la lancé waat personnellement nga jël Moussa Dioum yóbbu ma ko ajana to yal na rëccul li mu doon def fii sax yal na ko yàlla boore Seydina Mouhamed boore ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi mi mu yaakaar. Hmm. alhamdulilah jërëjëf ko baax